jéem nañu laa génn réew mi mënuñu ci yow dara ñu jéem laa nëbb mënuñu ci yow dara léegi nag nee nañu dañu lay toppandoo <laughs> waaye dama leen ne gis nga 9 kilos lóbbu gas maam jaara bi mën nga ko rey de waaye nag piir bi moom fii rek nga ko mën a amee lóbbu gas maam jaara ndax secret bi ñu taxañ ci biir fii rek la am mi ngi nii dal di kóor gaa ngi original baa ngi bu leen kenn nax nag 9 kilos bari na nag te bokkut boo leen bëggee bu baax loo bëggaas maam jaara rek ku ko am nag d'origine bi nag fii moom a e vent kilo maam jaara mhm. yaa moom a e vent jigéen ñi ci dul yaa jaara bu saf alen bu siis moom mere stress boo koy seet si bett kaa ko mos tàkkam mu saf rek ku ko naan na ko xam. ak Punch rek teraanga fii la fekk baax. bismillahi rahmaani rahim. rabbi srah li sadri wa yassir li amri. waxlul uqdatam min lisaani yafqahu xawli mbokk ñu seetaan asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu Ali TV ci seen jataay mu tuddee siira ngeen koy am benn yoon ci ñaari samedi dellu si ne leen ko defal si siira ay jataay la yoo xam ne day jàngale dundug yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu tàmbali woon ko minal milaadi ilal baath ilal baath yonent baa ngi nii tey ci ci xunti tey mooy suñu juróom benn fukki jataay ak juróom-ñeent maanaam numéro bi mooy numéro 69 su ma juumut ma nga ca xunti ma ma nga ca xunti ma jibril fekk ko fa sunu boroom a ko yónni moom mi sàkk adduna wàcce fi aadama ak xawa ñu juri doom doom ya juri doom di jur ay yonente ki wàllu yoo ki xutbu zamaan ba jamono ñëw mu yónni yonte Yàlla Isa yónnee yonte Yàlla Isa mu toogub diir àdduna am ñib yonent salawaatullahi salaamu alayhi daal di feeñ ca Makka mi ngi ci xunt mi li ko malaak mi njëkk wax mooy iqra iqra ci ci wolof mooy jàngal su ma juumul ñetti yoon la baat bi ñëw ci alxuraan iqra jàngal jàngal comme da bëgg a defar say bokk jàngal comme danga bëgg a changer penc mi jàngal comme da bëgg indi beneen tëralin ci kaw suuf civilisation bokkut ak bi fi nekk yooyu yëpp iqra moo koy mooy tax nga mën ko mooy tax nga mën ko jàngal léegi nag bismi rabbika bismi rabbika diggante jàng ak arabu arabu tarbiya sëréeguñu moo tax njàng mi day ànd ak yar bi yar bi day ànd ak njàng mi at tarbiyatu wa taalim attaalim wa tarbiya iqra bismi rabbika jàngal ci sa turu borom ndax li ngay bëgg a def boo ko àndee mu sotti te yomb boo ko àndee yow mu jafe kon nag bismi rabbika mbokk yi moo tax àdduna njàng moom moo war na jiitu mu moom bismi rabbika waroon a jiitu mépp njàng mu dul moom adduna ñi ngi fexe ba nit ki jàng lépp ba mu des li war a jàng adduna dañuy fexe ba nit ki jàng lépp ba mu des li war a jàng loolu du sotti li gaay yi naan wax lépp te waxoo fi dara a yàlla moom na dal yàlla moom leen dal iqra bismi rabbika jàngal ci sa turu sa boroom alisi xalaq sa boroom mi nga xam ne moo bind la tàmbalee ci aadama ba ci yow mi ba ba dunay tukki mooy ki nga xam ne xalaq tawxidul xaaliq yi daal di dugg fii tawxid rububiyya dugg na fi tawxidul xaaliq yi daal di fi dugg kon nag jàngal bismi rabbika lisi xalaq mi nga xam ne moo bind jàng ba xam ko jaadu na ci ngeen war a tàmbalee seen jàng yépp bu ngeen noppee nag lépp lu jëm ci wàllu jàng pour liggéey jàng pour nangam ngeen jàng ko waaye ma ne àddunay fexe ba nga jàng lépp ba mu des li nga war a jàng mu ne ko xalaxal insaan min alaq science daal di dugg xalaxal insaana min alaq science daal di dugg te min goo xam ne dëkkut ci illa min xalaqal insaan min alaq alaq jooju min alaq jooju waxut fenn xattaa ndax mu taxaw walla ilaa ndax mu taxaw min min min ji xattaa tegiwu ca ilaa tegiwu ca moo tax nit al insaan ginnaaw min dafa doore ci min yàlla ak ak pullu ko fu mu war a yem fu ko mbaa xam àggali rek war na faa mën a àgg hmm? waaw ndax min ju kut ci ak akkut ci xattaa mooy nit nu ne mën na ko mel waaw ba mu des doonub yonent bu la neexee bu subaa nga doonub sëriñ bu neexee bu subaa nga doon waliyu bu la neexee bu subaa nga doon ab ustaas bula la neexee bu subaa nga doon ab imam ndax min alaq jë moo tax waaw foofu itam doomu aadama yëg ne ndekketam ñu ngi ko bind min alaq woyof daal tàmbali dugg ak déggoog say bokk mbokk yi borom mi ne ko iqra muy beneen ñaari yoon malaaka mi ne ko iqra wa rabbukal akram na nga jàng ndax jàng mooy tax nga xam ne teraanga yi adduna yii taxulaa jóg teraanga yi sa borom moo ëpp teraanga yi adduna iqra wa rabbukal akram loolu nag jàngkat yi ak jàngalekat yi ñëpp a ko war a ràññi wa rabbukal akram nit mën na am teraanga waaye teraanga yi sunu borom li kenn mënta am moom teraangam ci moom la tàmbalee ci moom la yem iqra wa rabbukal akram ah waaw iqra wa rabbukal akram teraanga adduna ndeysaan li ci sa borom yor keneen yoru ko ci waaw moo tax wa rabbukal akram ab borom xam-xam du rëy de waaye war naa xam boppam borom xam-xam nag du rëy waaye war naa xam boppam ah waaw xeex ak xomp ak xupp yépp mu xam leen ndax xam ne wa rabbukal akram bu ñépp àndoon bëgg laa teral sa tera yi sa borom àggul leen ci ka asaka waaw wa rabbukal akram ne ko nag allisi allama bil xalam sa borom moo xamle ci alxalam lim xamle mi ngi ko xamle ci alxalam ba alxalam nekke lu ñuy set ba ni mu nekk ba ni mu clavier ba leneen li bëgg ñëw am na leneen lu ñëw loo xam ne du too def nii da ngay wax rek li ngay wax lay bind mi ngi ñëw waaye lépp allama bil xalam allama insaana maa yaalam moo xamal nit loo xam ne xamu ko woon te bëgg ko xamul toon du ko xam waaw allama insaana maa lam yaalam suñu Cheikh Ahmed Tidiane si jàngalekat ba daana wax ne bu amoon université bu ñuy école bu ñu jàngee nam ñu naa mu ne balaa kenn mokkal dee bu amoon école bu ñu jàngee namp balaa kenn mokkal dee waaye liir bi day judd rek yaa ji teg teg fii rek teg ci yoon wi rek jox ko rek liir bi macc ku ko maccal allama insaanu maa lam ya'lam moo ne ko maccal liir bi macc ba suur daal di bàyyi wen wi ku ko bàyyil allama insaanu maa lam ya'lam moo ne ko bàyyil liir bi jékki-jékki nelaw ku ne ko nelawal allama insaanu maa lam ya'lam moo ne ko nelawal liir bi jékki-jékki saf saw daal di saw ku ne ko sawal allama insaanu maa lam ya'lam moo ko saw moo ko sawal wa hakaza ndeysaan mbokk yi yonent baa ngi ci bi sunu borom di ko jàngaloo ndax daa war a defar àdduna changé yi fi nekk comportement yu baaxut yi gëm-gëm yu ñàkk solo yi relation yu baaxut yi yépp la war a def la war a defar mu war a xam kan mooy ar rabb waaw su ko defee lom dana xam lu ko indi kaw suuf xalaqal insaana min alaq nit daal di xam boppam iqra wa rabbukal akram nit xami teraangaam allamal insaana ma lam yaalam nit wut xam-xam tegal seen baaram foofu ñaan suñu bara may dund ba fekk samedi ji bu del see te weesu ko jéggalu soxna ak sëriñ ñaan jàmm ci réew mi ak réew yi ko di wax mbokk yépp abonnement yi tabaarakallahu mi ngi gën di yaatu mi ngi gën di bari yàlla na gën a yaatu yàlla na gën a bari vie itam bi gën a yaatu bi gën a bari partagé leen ko participer leen abonné leen aimé leen wa sponsor yi ñu ngi leen di jaajëfal ku lim jum waaye yéen ñëpp yàlla may yàlla may leen euh, chiffre d'affaires tabarakallahu yokk barke ci li ngeen di def yàlla yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir te def ci suñuy poos dara in uridu illa al islaha ma tataat wa ma tawfiqi illa billah wa wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu Fini le stress. Que vous soyez jeune fonctionnaire, entrepreneur ou même immigré, le groupe Mac Building vous aide à réaliser vos rêves. Vous souhaitez acquérir un terrain, concevoir votre plan architectural, construire votre maison, trouver une équipe ouvrière spécialisée, équiper votre maison ou bureau, trouver des matériaux de construction, décorer votre intérieur ou même gérer les démarches administratives. Le groupe Mac Building est là pour vous accompagner de votre projet. Vous estimez possibilité de payer en plusieurs échéances et de devenir propriétaire dès aujourd'hui. Pour plus d'informations, contactez le 77 550 11 19 77 550 11 19. C'est Luc Teigakoipare. J'ai beau d'un beat, ok, gox, so, so, j'arrête سيد تقباي yéen sama mbokki tapissier yi mbokki kor cordonnier yi yéen ñi bëgg bagage yu baax yéen ñi di wër matériel bu dëgër am taar lu ngeen ci defar du gaaw a xar seen naqar nee na fër kër gi xéewal waa kër xaadimu rasul nekk fii ci Médina rue 25 angle 24 Modou Lay Diop et frère ñoom mën ci jaay bépp jumtukaay bu tapissier bi di soxla wala cordonnier dañuy jaay bépp xeetu toile eskay simili cuir velours LC Meka ak bépp accessoire fauteuil dañuy jaay ay pieds ci ay modèles yu wuute qualité bu dëgër repose sangal bande dorée bouton cristal appareil agrafe bal agrafe ba ci ay protocole col pompe am nañu ko fàttewuñu benn yoon ay nappe de table yu rafet lool ci qualité yu baax base auto mën ngeen ko amee fii ci kër gi xéwal base pente bépp dimension bu ngeen ci soxla ak qualité bu dëgër mën ngeen koo fekk fii ci kër gi xéwal bokk yi woo leen ñu gaaw ci 76 330 55 10 ngeen laajte Modou Lay Diop wala 78 382 67 68 ngeen laajte Ibrahima Diop gàngu naa yi jaay lu baax ci njëg yu neex kana ca faax moo di kër gi xéwal waa kër Xaadimu Rasul Médina rue 25 angle 24 kër gi xéwal suñu kër gi ñuy xéwaloo. youpi baby une grande bambinerie bambinerie bu mag a mag a mag a mag a mag lépp loo soxla pour sa bébé ah mbokk yi balaa bébé bee juddu nga jënd bu bébé bi juddoo nga jënd bu amee un an ñu defal la affaire bu amee deux ans nu xale bi màggee lépp la ñu am lépp loo soxla même pour yaayu bébé bi ñu ngi nekk rond point Jet d'eau à côté de la station Ola berceau youpla transat vêtements pour nouveau-né 100 pour cent coton cadeau de naissance paanu njëkk njëkke wala turandoo <laughs> le turandoo bay jënd di ko yóbbu nga xam ne turandoo ba am maanaa valise de maternité pour bébé et maman appelez au 77 243 70 70 77 243 70 70 youpi baby rond-point jet d'eau à côté de la station Ola la bambinerie de référence